waaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay bàyyi nga présenté wu. waaw man ñu ngi lay siar bu baax yow sëñ. ah sëñ Ablaye. ñu ngi lay siyaar bu baax ci màggal gi di la siyaare ci bés bu tedd bi te ñaan suñu borom may ñu teewe ko teew yu bare bare bare te suñu borom yokkal nu xéwal gi ba lépp luñ ci jëf ren bu dee nañu mën lu ko te am nañ ci yaakaar ndax sëñ mu am tànk ginnaaw tànk rek la am.

booba léegi fii ngay màggale. booba léegi fii la ñuy màggale. xam jafe-jafe yi ci courant moom manqué woon nañu ko lool suñu doom ji nga ne mooy suñu taaw moo ci góorgóorlu sax ba indi fi ñetti pot ko tum ndax gu dañuy bëgg wax am euh, gi ci courant bi courant bi day ndax bëgg ko mu xam suñu tawat ndox ba batay bëgg nañu ko ci sunu mbedd mi ndax ndox mi ñëw na waaye nag balay uh, robinet yi duggagut bëgg nañu ko fi suñu ko mënee branché daal bokk suñu ndimbal waaw. fekk na ren uh, ndox mi taw bi na si dëkk bi. bari na dëkk bi dafa am assainissement wala mu demee. amul assainissement te wax dëgg yàlla uh, ndox mi bari na bari yoo xamante ne bii bu ñëwee am na ci kër yoo xamante ne bii dañuy génn te nawet nga génn pour nga am foo dugg nga fatu fatu yomb. parce que yëpp dañuy am problème boobu daanaka li am day bari kon pour nga am foo dugg du yomb kon loolu bokk na ci assainissement boo xam ne maam dafay mën a jël ndox mi nga xam te ni kër yi dootuñu mën a am ndox ba tumuranke yooyu di am kon ci dimbaloon daal dinañu sant gën a sant daal waaw dañu gën a bu baax. màggalu ren bi naka ngeen ciy moom wax dëgg niñ ci taxawee mooy bëgg rek maanaam gan ñi bu ñëwee li ñu bëgg lépp nu ànd ak ñoom ci li ñu bëgg. duñu bëgg dara lu leen metti wala lu wala lu ñu lé leen ci metti nag it moy gan ñi bu ñëwé ñaaré dëkk bi day démé no xamante bi fenn fa nga bëgg fa ak siar fa xajna moy tax mu xat xat go xamanteni bi na ngay bëgg do na mëna amé su ko défé légui wax dëgg ak loko bëgg bëgg té té mu am nu mu démé do ko du neex a dina doon lu metti nak nak ndax bu nu amon bu nu xëñ mu nu gan day tok bu nu defal ko suñuy bernde wax dëgg yàlla tëral ko teranga yu am yoo xam ne maam yu am solo ci bés bi mu doog a dem waaye nag xataay bi lay tax loola du yomb préparation màggal gi dina métti ndax euh, dafa mel ni ba at nga ni préparé pour màggalu déwén. waaw waaw. ndax euh, dina am ay jafe-jafe yu bëri ngeen ci jàppante. waaw dina am ay jafe-jafe léeg ndax jamono léeg dem ba xaw mu xaw xat ndax. Euh, dañ ko boole ci li nga xam manam moy suñu sunu farata ndax day bës bo xamante bi bii kenn ku ci nek lo ci jëf rek dang koy xeeb lo ci jëf rek dang koy xeeb taxna ba lu am am jafé jafé itam du tax mu am jafé jafé bu garaa bo ndax señ bi man na lepp té mom dara lu manki mom mom sa bu àggee ci bis bi itam sunu borom dana matale lepp ndax sunu borom moko may mu jibok boromam ba am bis bi yalla may ko mu jabo mu jubóog muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu liggéey ko ba am ndam li mu am tay kon yaakaar naa lu mbeug dana ko am bis mom moom man nga ko am lool nak ci ngeel bi ngi way nak leppay mat leppay mat bu yalla wa ñu dégg ci loolu bay kané wa yow ay représentant wu euh, ndigal li nga xamantene mom la ci biir ndigal nga xamantene walu ormalu dëkk bi. wa lépp yow si gox wi nga nekk. bokk ñi nga xamante ne ñoom waaw bëgg am ci ndigal loolu si moom la jot. waaw bi ñu am ci ndigal man dafa yàlla dafa dogal fii laa nekk sama kër fii ba yàgg sama doomi sëriñ sëñ Bada Fall ma téléphone te ma wooyee téléphone ma wuyu ko mu ne ma Baye Sall ma ne ko Fall mu ne ma sëñ bi day dafa am ñu ko doon laaj ci ndigal loolu sëñ Mountakha jox sëñ am di Modou Mbenda. muy bokk sàmm warmaay Tuuba léegi nag damaa bëggoon euh, bu fekkente ni di ko mën ndax yow dam sama xel daf laa dajoon ma bëgg léegi nga bokk ci liggéey boobu bi ma ko waxee ma ne ko nag faal lool rafetlu naa ko lool noonu daanaka bëri gu loon rek dañuy bëri fu ñu bëri jëmee rek fu ñu bëri jëmee rek nun noo foofu loolu ndigal moom luñ ci mën ak luñ ci mun lépp lépp dinañ ko jéem ndax dëkk bi dafa dem ba yegg foo xamante ne bii melo mu mel nii dafa yéeme ndax melow yu taxoon sëñ bi sanc ko ak melow yi nu dëkk bi toll léegi dafa dem ba dafa yéeme ndax dëppootut ak worma dëppootut ak sutura dëppootut ak i teggin jigéen ñi lu leen neex lañuy ñuy sol góor ñi lu leen neex lañuy ñuy watoo booleeg sami rugi seen tubéy yi yooyu yëpp bokk na ci li nga xam ne maanaam moom la sëñ bi saafaralu waaw rugi tubéy ak maanaam euh, watu xama dégradé lañ koy xawma ak maanaam xeesal ak mees ak xef yi ak euh, col gu bon daal yooyu yëpp daal bokk nañ ci li sëñ bi tere ak ñi nga xam ne maam euh, ay samba booy lañu di dugg ci dëkk bi di def naka sudu noonu ñooñu nag la sëñ bi bëgg sëñ am dugg benn sëñ am dugg benn maam raxasal ko dëkk bi tànnal ko loolu fi bokkul génne ko ba mu set su ko defee li sëñ bi bëgg mu am ko te nu it li sëñ bi bëgg ñun suñ bakkan lañ ci gar loolu daal ci la ñu suñu borom boole ministre da ngeen si jàppante ay difficulté am nañ nit ñoo xam boobu. waaw ndigal loolu. waaw séenu wuñ ko sax tegee. voilà loolu jëflante a jëflante. jëflante boobu nag kon ci jàpp te nu wax ak yow ci kaw ak taali bi nangu woon a woy ci kaw ak taali bi danañu la jël yóbbu la ci kër gu fii ci kër gu mag ba nu yóbbu kër gu mag dinañu waxtaan ak yow waxtaan boo xamante ne bii da nga topp suñuy ndigal mënoo topp suñuy ndigal ah nekk bëgg nag nu dem ci ak yow wax nu ndax nun di suñ bëgg moom force da koy am ñun foofu la ñu teg suñu tànk te duñ ci mës a teg suñu tànk nag itam waaw duñ ci mës a teg suñu tànk waaw en sëñ bi li mu bëgg ci ndigali rek waaw. bu weesoo loolu li ñuy tëjee. waaw Baye Fall nga. waaw ñu yàlla xam na ne yoon bi. waaw daanaka moo ëpp. loolu loolu moom lay am ndax euh, li sëñ euh, sëñ Mbaor di wax rek. nee na pañab guro boo dem am na sànkar waaye ñi nga xam ne maam dañoo dëggal Baye Fall te te juddu ci Baye Fall te màgg ci Baye Fall xamuñu lu dul meenum Baye Fall ñooñu xamuñu lu may liggéey Baye Fall amul jot Baye Fall liggéey la lay euh, lay def ak déglu ndigal fu ndigal jóge mu fas yéene jëfe ndigal la Baye Fall dëgg loolu lay dund waaye nag Baye Fall yi nga xam ne dañoo yor seeni i kël takk seen i ndig takk seen i seen i kaw suuf ak seen i fas seen i tànk yooyu du Baay Faal te yooyu daanaka li ci ëpp ci yoon wi li ko sànkatal ci la bokk te am na ci samba boo yoo xamante ne bi dañu koy tuddoo te fekk duñ dara waaye ñun ñi nga xam ne yàlla dogal na dañoo namp maanaam dañ ci judd namp namp meen moom noonu xam nu lu du maanaam na ci sunu liggéey fas yéene nu ñu yore sunu njaboot fas yéene toog fu nu nekk toog di déglu ndigali sëñ bi ñun loolu daal lu ci la ñuy wéy te it ci lu nu fas yéene nekk dama koy nday sama gars yi maa ngi siyaar waaw ñu ngi siyaar baax a baax toog fii ah. sant alhamdulilah gay naka magal bi waaw magal gis nga de ñu ngi nii ban mën teel na noo yeewu loolu nekk ci de hmm. waaw waaw gis nga de bañ ci nekkee ba léegi nag taxul maanaam ñu dellu ginnaaw wala ñu dellu yoo xamante ne ni maanaam tax na eh, ñu naan noflaay laak yooyu de nekkunu ci hmm. waaw ba nu ba léegi daal ñoo ngi ci lépp bëgg a làq ngërëmu sëñ bi rek waaw lépp daal bëgg am ngërëmu sëriñ Tuubaa rek waa ren bëri ngeen ndox mi waaw ren waaw moom ndox mi bëri na fi torop bëri na fi torop mën naa ne Tuubaa mën naa ba commencé première safar ba léegi chaque jour day taw suba ngoon guddeeg bëccëg waaw loolu moom xam naa ne moom loolu am fi moom ndox na fi na fi sama yaay ji nga xam ni moom <laughs> yaay ji sama yaay ji moo yor gànde yaay noo def sant yàlla maa lay siyaar bu baax ñu yal nañu yàlla doole yow gis gi gi de rek ñu ngi seen ni allah mhm. dëgg yàlla ñëw nañu sawar nañu mhm. góor ñeeg dañuy ñaan lu nu man ren rek bu déwénee nu man lu ko ëpp wax dëgg yàlla nun bisub màggal rek la nu am nun bisub màggal rek la nu am Touba rek la am bu nu sañoon fu waaye ne ci àddina ngay mbokk muy dëkkandoo bu bis bi ñëwee nga ñëw teew loolu rek la nuy ñaan fii rek waaw ndax mënoon ngaa xool faneen mbaa nga xoolee naneen mbaa nga xool ku nu gën a riis gis nga ko nii ba ci xale yi nday ndur ñoom ñi kenn du nu teggi fu ñu toll fii la ñuy dal si te mënoon nañ am nañu ñeneen i bokk ci dëkk bi yow mi am ga yeneen i bokk ci dëkk bi waaye xooloo ko de da ngay ñëw rek ngir yàlla ak moom xeeboonu. Euh, ren gis nañ ne ndox mi xaw na leen waaw ndox mi sonal nañu. ndox mi moom sonal nañu moom taw bi bari ndox mi na nañu courant bi kuppe gis nga ko ni barki démb rek la ñu installé waaye gis nga ko courant bi coupé dëgg yàlla. mu loolu rek nan ci ñaan kilifa yi lan ngeen leen ñaan. xanaa nag ñu dimbali nu yokku nu kaaraange te dimbali nu nag wax dëgg yàlla waaw wutal nuy kanaal wutal nuy pos ndax sàcc yi sonal nañu nu du nu tëdd nelaw. utal nu kaaraange daal boole ci. waaw hôpital yooyu bëgg nañu ko ndax ku fi feebar bala ñu laa yóbbu ba nga yegg daanaka boo sàggantul yàlla def li gën waaw sonn nañu lool moom sonn moom def nañu ko dimbali nu it nun jigéen ñi waa ci mbirum liggéey ndax fu ne la ñuy mbëkk waaye gis nga ko sant yàlla rek waaw lu ñu mën a dimbalee ci mbirum liggéey it nu jël